سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، أولا نحن نشكركم جميعا باسم الندوة العالمية للشباب الإسلامي بصفتي مديرا لمكتب الندوة في غرب إفريقيا على هذا الترحيب ونحن في زيارتنا في يعني هذا المكان الطيب في انقسم في الخلافة شاكرين لكم حسن الاستقبال وحسن التعاون ولقاء السيد الخليفة يعني بهذا بهذه الروح الطيبة نشكره على هذا ويعني لإخواني المتحدث وغيرهم وطبعا الهدف من الزيارة هو يعني التعاون لخدمة الإسلام والمسلمين وهذا التعاون إن شاء الله يكون له فائدة في هذا المكان ويعني وما حوله لنشر يعني العلم ونشر الخير في هذه الأماكن ومن المعروف أن الندوة تعمل في مجال الإنسانية عموما فهي تبني المدارس وتحفر الأبار وتهتم بالأيتام وطلبة العلم وتبني المراكز الإسلامية في كل مكان ونحن سعداء بهذه الزيارة سعادة كبيرة شاكرين لكم حسن الاستقبال وحسن الضيافة وإن شاء الله نحن مستمرين معا في تعاون مستمر إن شاء الله لخدمة الإسلام والمسلمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكي جرجن جف بوك نيو سيتان نيو رك pour tekki kaddu yi nga xam ni kaddu yu gàtt la yu mu waxoon te mu ëmb lu bëree bëri comme ni nga xam ni noonu di ki nga xam ni moo jiite kuréel boobu nga xam ne dafay yëngu ci wàllu lislam bi wax na ko léegi te nga xam ni maktabul iqlim yi maanaam bureau bi nga xam ni régional la moo nekk fii ci Dakar te moom moo ko yor moo ñi nga xam ni ñoom la ko bokkal mi ngi ànd ak secrétaire am àndit ak chauffeur ñëw léegi ànd ak Cheikh Mouhamed Rafa yi mi nga xam ni mooy seen bunt fii ci kër gi bi mooy ñaareelu ñëwam mu ñëwoon ziyaara si xalifa bi seet si ko saafonteeg moom pour xamal ko tànk yi nga xam ni moom lay dox indil ko it hadaaya bi nga xam ni moo gën ci àddi yi muy alquranul karim nga xam ni baaxu àddina ak baaxu àllaaxira ci la ko yàlla def mu doon loo xam ne lu rëy la mu waxit ni euh, bureau bi nga xam ni yor na ko muy kuréel bi nga xam ni tey ci lay liggéey kuréel la boo xam ni dana taxaw liggéey yu bare danañu gas ay teen danañu tabax ay école danañu liggéey ci wàllu santé danañu dimbale njaboot gi ci wàllu yu bari danañu joxe itam ay ndimbal yoo xam ni suñu demee ba tabaski wala korité mu jot ñoom ñi daañu jog ziyaara nit ñi jox leen ko waaye daañu yar itam jirim yi nga xam ni amuñu fenn fu ñu làqu fu dul ci ñoom ba ñoom tey ci seen centre bi nga xam ni moom la ñu yore ñu nga fa yore junni xale yoo xam ni ñoo leen di yor di leen yar seen lekk ak seen naan seen col ak seen paj lépp mu aju ci ñoom loolu mooy seen taxawaay fii ci réew mi ak Afrique gi nga xam ni tey yàlla dogal na mu jiite ko loolu moo nekkoon ay tànkam kon mu ñëw doon ziyaara si rek sëriñ bi dalal ko kontaan ci lool bu baax ñaan koyit pour mu yendoo ak njaboot gi su añee ba noppi soog a dellu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله